ci tànk yooyu. waaw man dama ne expliquer xam nga man du ma jël sensu wàññi dooley président parce que président de la république ak lu mën a demee aussi kenn du ko futti ba mu set wecc c'est vrai si régime bi ñu nekk gis na ñëpp def nañ constat bi président de la république président Bassirou Sama Diomaye sax wax na ko nee na président de la république doole ji dafa bari dañ ko jox ci pouvoir dafa bari alors que du noonu la war a mën a deme parce que dañu wax ni dañu nekk si régime présidentiel. maintenant boo demee ci configuration régime présidentiel yépp c'est l'équilibre des pouvoirs le président de la république qui incarne l'exécutif warul ëpp doole assemblée nationale le président de la république à travers l'exécutif bu muy incarné warul ëpp doole le pouvoir judiciaire ça doit être l'équilibre total des pouvoirs benn pouvoir warul mën a mettre la pression sur l'autre loolu mooy configuration exacte bu bu bu bu bu régime présidentiel mais demal aux États-Unis du régime la ñu maintenant nag mais ñun régime présidentiel malheureux malheureusement régime présidentiel bi ñu yor c'est un régime de contrefaçon régime de contrefaçon mooy da ngay détourner da ngay fexe ba désorienter pouvoir yi en faveur de l'exécutif pour jox ko doole ñun noonu la ñu def te loolu ça a commencé depuis 1963 bi Senghor di modifier waat constitution bi pour bëgg a éliminer Mamadou Dia parce que bu ñu fàtte ni avant loolu di am ci régime parlementaire lañ nekkoon régime parlementaire c'est la collaboration des pouvoirs ñu amoon une un exécutif bicéphalisme maanaam ñaari nit yu incarné l'exécutif muy Mamadou Dia ak Senghor. est-ce que mu ñëw si dama lay traditionnel maanaam lay wax rek pour bëgg a comprendre quoi mm-hmm. ñaar ñooñu ñoo fi nekkoon te ku si nekk am na loo doon incarné Mamadou Dia doon gérer les affaires intérieures de les affaires intérieures Senghor doon gérer les affaires extérieures. tu mais bi ñu demee ba am problème jarul ñuy dal si problème bi gis ngeen Senghor techniquement na mu def il a la constitution pour indi un régime présidentiel pour jox boppam doole pour mën a éliminer kële parce que régime présidentiel bi yow exécutif benn bopp rek lay am mooy diriger mooy doxal tu donc loolu procédure boobu noonu tey ñu désorienter les pouvoirs en faveur de l' exécutif moom moo ñu topp tey te bu ñu fàtte benn affaire man dafa am loo xam dama see mës a d' accord mës si ànd mooy damaa jàpp ni man suñu constitution la ñu war a refonder yenn éléments yi dañ ko war a xoolaat bu baax refonder waat contextualiser ko parce que xam nga yow constitution boo xamante ni ba nga koy doon constitution bi ñu doon constitution bañ koy tabax ay période autoritaire lañ nekkoon moo tax tey suñu président yi dem ba di des fois di yor doole joo xamante ni en réalité sax da leen di jàppee koom buur te defuñu ko seen bopp constitution bi moo leen ko dox def parce que moo leen jox pouvoir yi jox leen prérogative yi ba dem leen transformer la tey en roi buur maintenant moo tax ma ni tey bu fekkee dafa am ay réformes yu ñu bëgg a def la ca gën a absolu te gën ca am solo mooy refondation au niveau des des institutions si loolu la République moo waxal boppam dafa bari yow comment concevoir tey boo demee si domaine yëpp su domaine yëpp le président de la république moo am sañ-sañu may mën a xëy suba dissoudre li nga xam ne que mooy assemblée nationale. tu as vu tey boo demee dans le domaine de l' administration nationale c'est lui qui nomme tous les emplois civils et militaires hein en matière diplomatique moom mooy accréditer les les ambassades. dans le domaine de la défense nationale moom mooy moom mooy présider le conseil su moom mooy euh, c'est le des des armées. en matière législative bu ko neexee suba suba moom ak gouvernement am ñu def kii loi loi jëmal ko assemblée nationale ak yeneen ak yeneen maanaam loxoom daa fëy ci pouvoir yépp maintenant nag tey aujourd'hui y a un malaise structurel et profond boo xamante dañ ko war a régler en réalité parce que paradox dafa am si fonctionnement institution yi mënuñu concevoir ñu ne yaa a trois types de pouvoir législatif exécutif et judiciaire ñooñu ñëpp di ay pouvoir yoo xam ku ci nekk wujju nga ci sa moroom nga ni le pouvoir exécutif yow yaay le garant yow yaay la le le gardien yow yaay assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire comment concevoir un pouvoir concurrent nga dénk ko pouvoir boo xamante ni moom moom moom wujj la koy jàppe di ko xoole le président de la république tey bi ñuy wax ni moom la ñuy sepp ci conseil supérieur de la magistrature mais kooku moo war a assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire est-ce que dana ko matale c'est-à-dire man jàpp naa ne yooyu yëpp ay malaise la yoo xamante ni aujourd'hui tey jàpp nañu génne woon loxoom ci biir conseil supérieur de la magistrature mën na nekk loolu parce que conseil supérieur de la magistrature du organe bu ndaw du organe bu ndaw tey boo demee si état inspiration juridique française yëpp dafa am conseil supérieur de la magistrature parce que dañ doon gis ni exécutif bi dafa doon instrumentaliser ak mani manipuler magistrat yi organe boobu ñëw taxaw pour dindi loolu yëpp. kon yow li assisa yi wax ni Diomaye dafa génn ci conseil supérieur de la magistrature da nga see ànd. mais ñoom ñoo ko xam nga ñoom avant assises yi di ko wax ñoom ñoo ko njëkk a wax. à travers seen projet. te gis nga tey collectif bi war nañ la leen ñoom si document bi ñu yor président de la république engagement boobu moom da koo jëloon. maintenant nag la mu mën a nangu ak la ma leen mën a jàpp ni kat moo xew mooy réalité bi ñuy théoriser mooy réalité d'état xëy na peut-être da ñëw nañ toog nañ ci chaise bi jàpp ni lii kat ah bu ñu ko defee kat mën nañu gàllankoor ëllëg parce que le président de la république annoncé woon na les couleurs ci bi bi. il faut faire il faut tout faire pour éviter une république des juges mooy république boo xam dañ koy bàyyi juges yi ñuy doxal nangam ak nangam maintenant est-ce que nekkul aussi ci stratégie bi est-ce que bëggul sàmmonte ak kàddoom pour génn moo tax mu ni corps bi daañ ko élargir dugal ci yeneen personnes yoo xam c'est des personnes étrangères est du dafa nar a génn mais indi yeneen d'autres membres de l'exécutif yu ko fa nekkal parce que ça s'est passé au Bénin wax naa la ko fii keroog ça s'est passé au en 2018 2019 statut bi ñeel wàllu magistrature dañoo jël des membres de l' exécutif yoo xamante ñii ay ministre lañ nangam nangam dem dugg leen ñuy siège ci biir conseil supérieur de la magistrature loolu nag magistrat ya duñ gis duñ ko gisee gis gin bu rafet parce que dañuy jàpp ni tout simplement l' exécutif moo bëgg a ñëwaat neutraliser corps bi voilà waat li nga xam ne que mooy organe bi kon jàpp naa ni mais est ce que ñoom yàkkamtiwuñu ñoom assisa yi 100 jours nga bëgg a teg pression. bees ak urgence si si am itam hmm. a jàpp naa ni fàttali la parce que audience aussi boo ko demandé dafa am délai y a un délai imparti boobu moom bu bu bu kiiwee dafay kadib tu vois bi xëy na peut-être ñoom rendre nañ compte. parce que dafa wax na ko léegi ñoom. Euh, ñu ngi doon wax ci affaire nee na ñu kenn invité wu leen par exemple ba ñu def les assises ah, de la justice mais ko wax mais moom sax moo doon le facilitateur euh, ay Seydi Gassama ñu ngi foon donc est-ce que ah, amul contradiction bu am aussi Mamadou Ndoye bi de la LD xam nga dans chaque euh, LD génnoon na keroog di critiquer les 100 jours xam nga xam xam nga des fois ñoom itam doo comprendre seen démarche lan la en même boo dé déggee keroog bi ñuy def assise xaw ma ci affaire transport yi xam nga transporteurs yu bari invité nañ leen ñañ jàpp ni aujourd'hui ñoom ñoo gën a kii ci ci secteur bi mais am na ñu taxaw feneen ne invité wuñ mais noonu laa ko mën a comprendre il y a toujours toujours il des gens yuy wax ni boolewuñu ci mbir mi kon ñun demuñu en réalité mais jàpp naa ni aujourd'hui man ci la ma jàpp sama gëm-gëm ñuy def assise de la justice bi ñoom ña nga xamante ni aussi ñoo gën a yor responsabilité invité nañ leen parce que président de la République dafa wax lu am solo dafay bâtir un état de droit mais si lan la koy teg une démarche participative et inclusive te ku mën a dem ba di invité ñoo xamante ni tey jàpp nañ ñi tey ñoom ñoo war a taxaw pour opposer wu la muy APR ñi génn sax invité nañ leen kon jàpp naa ni une société civile boo xamante ni aujourd'hui rôle am véritablement mooy jouer un rôle d'équilibre jàpp naa ni gars yi duñ def ay assiste duñ leen impliqué xëy na peut-être nag ñenn ñi mooy li ma wax léegi rek ay c'est des gens yi génn wax ni bon nangam nangam et cetera dafa loo xamante ni man dama leen koy nangul dama leen koy nangul parce que société civile aussi rôle mooy mettre la pression sur les autorités loolu muy rôle am ci régime démocratique loolu moom mooy cëram muy rôle ñoom bañ na ko ba loolu la leen constitution bi tolooreel la fu leen tolooreel rek comme nit ñi autoriser les partis politiques c'est des groupes de pression qui doit s'efforcer mettre la pression sur les autorités pour que yenn exigence yi ñu koy bàyyi. maintenant est-ce que mettre pression exécutive pour ses propres intérêts tamit est-ce que loolu. non est-ce que c'est non non pas ñoom quoi dama laaj ab laaj. mais pour ses propres intérêts loolu ku koy nangu pour ses propres intérêts mais dama lay wax rek textuellement parlant rôle société civile ak les groupe de pression nanga ak nangam mouvement yi jóg di taxaw ni askan wi lañ fi nekkal. c'est leur première de mettre la pression sur les autorités si li nga xamante ni aujourd'hui nit ñi ñu ngi koy sentir jaarale ko si ñoom parce que ñoom c'est des voies autorisées yoo xamante ni man mii le sénégalais lambda mënuma wax ñu dégg ma am na ay organe ay groupes de pression yu fi nekk que ce soit muy les partis politiques muy l'Assemblée nationale les députés wala muy les groupes de pression yu ndaw yi nga xam des fois dañuy organiser ay manifestations taxaw am ay points de vue ñu bëgg jàllale autorités yi daal di koy dégg ñooñu c'est des voies toléré dans cette république parce que loolu lañ leen wax il faut essayer de mettre la pression sur les autorités maintenant en revanche aussi autorités yi ñoo warul mettre la pression sur ces gens là ils doivent être à elles doivent être à l'écoute par rapport au point de vue de ces gens là xool la sa jaadu comme la ko président de la république waxoon traduire ko le plus rapidement possible en action kon jàpp naa ni aujourd'hui man la may attirer l'attention je ne ko forcer dafa yor un agenda tellement chargé mais man pour moi le plus démocratique aussi mooy na jël en compte aspect boobu je pense que jël na ko en compte parce que la barese la ñu doon théoriser ci biir contenu bi ñoom itam lu ñu doon xeex la muy état de droit démocratie bañ na ko ba ñoom ñi ñëpp tey ci ñàkkum état de droit ñu barese lañ duggee woon kaso muy Ousmane Sonko muy président Diomaye Faye muy ñi yor tey ay poste de direction ñoom ñëpp tey ci régime boo xamante ni demoon na ba installé chaos euh, ci réew mi ci noonu lañ demee kaso kon jàpp naa ne aspect yi tey valeurs yi nga xam ne c'est des valeurs yoo xamante ni moom la